mais mais mais pour en revenir euh, aux confréries au ndigal euh, ndigal n'est pas opérant peut-être ne pas toujours opérant mais gis nañ ku mel ni sëñ Moussa si moom dafa am un quotient électoral boo xam ne euh, lu mu wax la ñu wax fi ñu bëgg mu xool la ñuy xool ki ñu ànd ki mu àndal la ñuy la ñuy àndal. Mhm. Euh, paradoxe boobu nan nga koy. nan nga koy nan nga koy lan nga ah si. lan la ils ont ils ont ils ont des députés à l'Assemblée nationale. oui non ci coalition Yewwi. waaw non même avant. coalition Yewwi ci coalition ah, avant ay benn député. waaw mais waaw mais ils xam may mën a je suis en train d'analyser non. mais ñoom 2010. Euh, non nañu analyser da nga bëgg ñu def analyse. 2014 non ah. le PUR moo renforcé Khalifa Sall. mais est-ce que est-ce que mën naa est-ce que mën naa analyser. ah mën naa analyser. PUR euh, am na candidat fii 2000 ban année de l'élection passée 2019 moo jël quatrième. ñaata pour pour ak bon pourcentage. moo jël quatrième ak ban pourcentage. moins de cinq pour cent. xam nga mais ils étaient euh, ndaw si euh, soxna si je n'ai le pur xoolal sëñ Moustapha mi ngay wax ni ah invité na ma këram waxtaan ak man déglu baax la. Mhm. may ma parfum bu neex may ma montre bu rafet may ma costume bu rafet. ah bon dama lay wax rek ne ma lii man maa ko fasanteeg yow kóllëre est-ce que tu comprends. xam naa ne am nga ko tout ça mais ci sama culture familiale kilifa bu la seetsee danga koy jox teraanga xam nga li ma la dama la bëgg a wax nii la nit ku ma naw la naw laa est-ce que dégg nga baax li ma la bëgg a wax. Mm-hmm. voilà aw benn sikki sàkk ci ki mu doon ak li mu doon pour nga comprendre loolu. Mm-hmm. mais xam naa laa la bëgg a wax. dama la bëgg a wax ni la fii Sénégal fii Sénégal ñi fi gagné mooy politiciens yi. ñi fiy gagné élection. mooy politiciens yi réew yi moo bindoo noonu même bu dul personnalité xam nga xam nga xam nga xam nga sëriñ seeg yooyu société civile la ñu dëgg loolu dëgg. Mm-hmm. même da ngay bàyyi sa téléphone bi nga xool. non damay xool euh, le score du candidat du PUR il a eu 4,07 pour cent avec 178 613 ouais. voix à la présidentielle. mais man dafa am am man nu ma bindoo. Mm-hmm. su may wax soo ma xoolul pour man dégluwoo soo ma dégluwul du ma du ma bëgg mën a continuer wax. tu comprends voilà. xam nga sëriñ si société civile lañ bokk. même bu dul sëriñ si am na yeneen personnalité yoo xam dañu am parcours bu baax am lépp nekk société civile bu ñu demee élection ay zéro la ñuy am parce que Sénégal moo bindoo loolu loolu suñu tradition politique la c'est c'est pas contre le pur de loolu du affaire pur moo déedéet mais fii ay politiciens ñoo fi gagné noonu la deme xam nga baax li la bëgg a wax parti religieux yi xoolal euh, avant avant pur Cheikh Bamba Dièye papaam créé fi parti assumé que ni parti voilà et cetera mais mosul gañ dara ci comprends parce que réew mu nekk ak culture politique am xam nga baax na ma la bëgg a donc c'est loolu mooy réalité bi ah juste ba ba fi ñu toll fii bokk Sénégal daal du du Algérie bokk nga xam ni Front islamique di sali ñëw na gañe xam nga du Tunisie nga xam ne Ennahda ñëw na ba dominer assemblée nationale bi. fii li fi gis mooy parti yi fi jóge yépp nga xam ni. soit ci tarixe la ñuy dugg wala ci diine mosuñoo am score sax boo xam ni mën nañoo jàpp ni score bu rëy la ci élection mais dinañ soxla seen coefficient